sama xuloo waa sama xuloo waa la jaxate kaba ay ca bismillah <laughs> ñu ngi ñu ngi jërëjëf professeur alors gis nga li nga xam ne moom la ñu yeewoo tey encore ci Sénégal mu nekk fii ñu lool nga gis ñuy repêché ay corps sans vie ci ay jeune yoo xam ne de seize déjà la ñu wax waaw seize lañ génneegu waaw donc amuñu sax ay information yu bëree bëri parce que nee nañ daal lu ñu suñu reporter lu mu ñu wax mooy marine bi dafa leen doon dàq ji donc dañoo réer ba ba teeree si fii si Wakaam hmm. nan nga mën a analyser fan yi li nga xam ne loolu noonu la mbir yi takkar naa sewaatee encore waaw euh, en réalité immigration clandestine nekkul affaire boo xam ne bu bees la mi bëgg a yàgg ci suñu suñu dëkk bi hmm. euh, Sénégal ak dëkk yi nga xam ne yi ko wër te yàgg nañoo wax ni li nga xam ne moom moo waral xam nañ ko Euh, lu ci bëri bopp léegi li ñu war a mën a def mooy naka la ñuy agiré ci facteurs yooyu ba nga xam ne mbir mi bu bu dañul tamit dina wàññeeku bu baax a baax. Mhm. xam nga bi njëkk moom mooy nit ñi dafa am ñaari phénomènes yoo xam ne bu ñu àndee rek day xaw a jafe euh, mooy bu njëkk boo xam ne nit ñi sonn nañu lott nañu ci mbirum koom euh, pour ñu am lu ñu dundee lu lu jafe la donc mu nekk am ndóol boo xam ni dafay gën a yokk rek. Mhm. donc mu metti lool ci nit léegi nag bi ci topp mooy mu am pression sociale boo xam Euh, mbirum tekki lañ ko tuddee tekki. Mm. Euh, kër yi di ko di ko di ko entretenir euh, njaboot yi di ko entretenir te mi di ko entretenir mbirum tekki kii tekki na kii tekkiwul. Mm-hmm. ki am na njariñ kii amul njariñ léegi nag bu ko defee bu boobaa nit bi bu ñàkkee ba pare pression sociale bi fort loolu bu boobaa bu gisee bu gisee lenn loo xam ne xaw na xaw na yomb ci moom rek maanaam gaal yooyu nga xam ne mooy gaalu loo cee ñuy jël pour dem dañ koy jël daal di dem. Euh, donc situation yu mel noonu la ñuy la ñuy la ñuy dund nga xam ne euh, nguur gi mën na jóg liggéey ak yeneen dëkk yi nga xam ne moo nekk bitim réew dëkku nasaraan yooyu daal di wax ni nañu fexe ba kenn du dem nañu fàtt yoon yi nañu xool ñu leen di surveiller même mais même loolu boo ko defee nit ñi dinañu wut yeneen pexe euh, yu yu ñu jaar pour dem donc li nga xam ne moom moo ëpp solo li li ci sama gis-gis mooy comme xam nañ ni mbirum koom foofu dañ fa am ay jafe-jafe surtout ndaw yi ñu am liggéey ñu am lu ñu jàpp Euh, loolu nañ ci liggéey pression sociale bi tamit ñu xoolaat ko parce que bu ñu demee ba yenn jigéen ñi di def natt natt natt nat natt natt euh, immigration clandestine. Mm-hmm. nga xam ne dañuy natt teg yi joxal seen doom pour mu dem jëli gaal bi. loolu tamit ñu ñu ñu xoolaat ko ñu xoolaat ñu xoolaat nu ñuy euh, mm-hmm. defaraatee suñu pénc nu ñuy taxawalaatee suñu pénc ba yenn jëf yi ñu ñu ñu xaw ko wàññi maintenant model nag dafay am maanaam di liggéey ci modèle yi maanaam ñi nga xam ni des nañ ci réew mi. génn ci da nga koy gis koo xam ni dafa nekkoon marchand ambulant wala mu teg taabalam donc nekk ci tàmbali di korkor yi di di nab nab yi ba am leen lu mu taxawal euh, mu ciy dund dund dund bu yéwén alors modèle yooyu dañoo war jël fësal ko wane ko. Mm-hmm. te lii lim lay wan mooy jamono ji wax dëgg yàlla am nañu problème c'est-à-dire nekk ci jafe-jafe yu mel ni immigration clandestine suñuy ndaw yi dugg ci géej gi di fa des. parce que dañoo am jafe-jafe fii ci seen di wax waxi politique rek ñu continuer di wax waxi waxi élection février cinq rek deux mille vingt mu mel ni loolu rek mooy mooy mooy li soxal nit ñi ñu nangoo jóg bàyyi ci suñu ay bakkan alors que suñu ay problème dëkk dëgg mooy yii tey jii mooy suñu ndaw donc man li ma yaakaar mooy penc bi ñëpp war nañoo toog ñu pencoo loolu ñu xalaat loolu parce que lii moom mooy urgence moom mooy enjeu mhm. naka la ñu mën a def ba taxawal suñu penc taxaw euh, taxaw surtout ci mbirum koom gunge suñuy ndaw ba nga xam dinañu mën a jàng dinañu mën a am métier euh, dinañu mën a toog fii liggéey fii tekki fii ci réew mi loolu moom mooy yi nga xam ne tey jii war nañ koo war nañ koo waxtaan moo gën nekk fi rek di wax diw dina nekk candidat diw dina nekk candidat deux mille vingt quatre politique bi franchement sonn nañ ci loolu li nga xam ne moom la dëkk bi di xaar mooy yan solution li ñu mën a am pour que suñu ndaw yi am ci lu ñu téye toog fii ci pénc mi dimbali seen jaboot tekki fii ci jaboot ci am seen dignité loolu moom mooy li am solo. Euh, mu mel ni professeur euh, wax nga ko actualité bi on ne parle que de politique ba fàtte li nga xamante ni moom mooy les politique de développement mais l' aussi de la pêche ak la fait que gaal yi bu njëkk dañ daan dem pour wuti jën ah pêcheurs yi nekk ñi nga xamante ni daanaka ñëpp dañ leen a ñee bu ñu jëlee seen gaal yooyu di ko jëfandikoo léegi pour di ci def trafic est ce que aussi waruñu xool naka la ñuy redynamiser suñu pêche mais mais loolu mooy dëgg cest à xam nga dama wax mbirum da ngay xool suñu suñu napp gi dafa dafa dafa am jafe-jafe euh, dafa am jafe-jafe loolu man mën naa mës naa bokk benn émission defe naa ci seen télé boobu la ñuy ñuy wax ci mbirum jafe-jafe ak nappkat yi problème yi ñu am damaa pare rek am benn nappkat boo xam ne mag la vraiment mag la mais woo ma ci téléphone di wax presque bay jooy di wax dëgg dëgg jafe-jafe yi ñu am ci mbirum napp euh, ni ni ni nga xam ni ñoom bu ñu demee géej dara ñu ko amati lépp mm-hmm. def nañu ay ay ay convention ak ak tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo ñu ëpp doole fuuf bu ñu ñëwee napp jën yëpp ñoom ñu am ay jafe-jafe pour napp yenn saa nga gis ñoo xam ne dañuy napp ay filets yoo xam ni baaxul yenn saa et parce que dañuy dem ba amatuñu benn pexe gis nga problème bi bu a am kayaar. Mhm. loolu yëpp wala suñu euh, nappkat yi nga xam ne dañuy dem ba dëkk jàmbur di fa napp ñu leen jàpp. Mhm. yooyu la ñu war a xool yan yoon la ñu war a jaar pour saafaral ko. Mhm. mais franchement man mënu ma nangu dëkk bu mel ni Sénégal. Euh, yàlla dimbali ñu euh, ñu am yenn yoo xam ni buñ ci góor góorgóorloo euh, yàlla dinañu dimbali suñu koom-koom ñu taxawal ko. Mm-hmm. suñuy ndaw am ci lu ñu téye njaboot yi di dund dund bu yéwén. xale yi di jàng nañu war a jàngee ñi war a dem jàngi métier jàngi métier ñu former leen ba ñu baax parce que bari nañ ñoo xam ne tamit nag amuñu benn métier. ñu former mm-hmm. leen ba mu baax. defaraat pénc bi taxawaat bu fekkee mënuñu taxaw waxtaan ci loolu xool ban yoon la ñuy jaar pour lijjanti loolu waaye lépp rek comme ni nga ko waxee léegi élection deux mille vingt quatre mais lan la quoi vraiment man lan la lan ku jóg ni man candidat la mais nañu arrêté loolu nañu lijjanti li nga xam ni moom mooy c' est vrai que eh, élection am na solo c' vrai que ñi ñi jiit am na solo parce que ñoom ñooy defaraat euh, yenn politique yi nga xam ni moom mooy doxal dëkk bi waaye dafa am li nga xam ni moom mooy di gën a jàmp euh, tey ji immigration euh, clandestine li muy jël ci suñu ay ay ay ay xale lu kéemaane la xale yi ñi ngi des ñi ngi bari je crois que loolu benn xale bu ci ñàkk bakkanam rek problème la war nañu taxaw effectivement xool rapidement naka la ñuy saafaralee loolu. mais professeur Adama Fall. Euh, allo professeur. vas-y. oui allo oui. oui Adama Fall. mais professeur dafa am laaj bu lay waaj c'est vrai yaa ngi doon wax ni euh, pression sociale c'est vrai que est-ce que candidature sax à l'élection présidentielle du pression sociale maintenant ñu ñu ñu laajte pression sociale boobu. naka lañ mun a def ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu gën a wàññeeku ba nit ñi nit ñi dans la société ñu bañ a jàpp ni euh, obligatoirement dañu war a tekki quoi obligatoirement. waaw léegi dafa am yoo xam ni daf koy boole bi njëkk moom mooy métier euh, xam nga nag tamit euh, suñu gone yi dañu leen a war a tàggat ci métier ba ñu am lu ñu téye léegi bi nga xam ni moom moo ci topp moom mooy ñu ñu ñu ñu fexe ba ñu fexe ba wane ne kii nga xam ni dafa yore. marchand ambulant di jaay ay butéel ak lu mu mën ci doon euh, loolu muy dundee mi ngi mi ngi mi ci am lu muy for te mi ngi ciy dundee mi ngi ciy defaru mi ngi loolu dañ leen a war a fësal ñu wane ko comme ay roywaay yoo xam ne ci la ñu war a ci yor la ñu war a jaar mais mais sëñ bi dafa yombul nag tamit nga hmm. xool koo xam ne kenn xamul fu mu jógee jékki-jékki yor ay milliards hmm. nga gis ki nga xam ni ci ci mbedd mi lay lay lay nekk guddeeg bëccëg di jaay ay butéel sonn ba dee mais mais di dund ci lu doy ci ci lu metti en fait loolu aussi xam nga am réew dañ koy organiser façon boo xam ni ñi jëf dañuy ñi hmm. dañuy tedd ñi ñaq dañuy tedd lo loolu loolu loolu mooy li nga xam ni mooy mooy mooy li jaadu mooy éthique. Hmm. Euh, nga xam ni liggéey mooy yoon wi nga xam ni ci nga mën a jaar pour pour pour mën a téye ci dara mais bu fekkee ni ci ay tappale ak ci ay juuj njaaj ci ay nax ci ngay fexe ba ba ba ba am yow nekk ci gën a tekki ñi gën a liggéey gën a sonn. Euh, gën a gën a gën a daan seen doole nekk ci ay jafe-jafe loolu tamit dafay indi pression sociale dafay tax euh, njaboot yi yenn saay daan ni mais yow tamit defal ni ñëpp yow it defal ni ñëpp euh, jaaral ci yoon bi nga xam ni fa la ñëpp jaar pour yegg fa nga xam ni fa la ñuy yegg tey ji donc dafa am benn benn benn benn affaire boo xam ni arrière fond la il faut ñu liggéey ci loolu il faut ñu liggéey ci tàggat suñuy ndaw ci ci ay métier il faut ñu liggéey ci jox solo jox jëm liggéey que liggéey ñoom ñoom ñooy tekki ki liggéey moom mooy tekki loolu tamit bu ñu ko deful euh, pression bi day continuer parce que dañuy jàpp ni kon euh, ni li gën a gàtt yoon yu gën a gàtt daal mooy politikal rek euh, naxanteel rek xamal nooy waxee rek ba génn ci mu nekk yoon woo xam ni moo gën a simple moo gën a gàtt ñëpp daw bàbbee ko ci ba bëri ci ñoo xam ni amuñu sax métier mais wax dong la ñuy def naxaate rek la ñuy def fexe ba fi mu toll ni macha allah donc il faut ñu déplacer gis nga ndem si yàlla Mouhamed Mbodj doon wax ni nañu fexe ba ñi nga xam ni ñooy liggéey gën a gën a gën a te bu fekkee ni wërsëgu àdduna mu gën a féete ci ñoom mais boo ko dee xool suñu dëkk bi dañoo fexe ba ñi gën a politique wërsëgu àdduna ci ñoom da gën a féete léegi ñiy liggéey amuñu dara loolu loolu aussi moom mooy indi benn pression sociale boo xam ne day tax danga naan léegi demal wuti pexe rek euh, parce que pexe rek moom moo la ciy génne donc il faut ñu jubayu jooyantiwaat loolu te pourtant euh, le programme Sénégal émergent dafa ci axe am ni damay damay toppatoo samay samay ñoñ samay samay nit dama leen di jox euh, kattan dama leen di jox xam-xam dama leen di jox euh, damay fexe ba ñu nekk ñoo xam ne dañ mën a liggéey loolu la ñuy wax capital humain mais loolu taxawaay bañ ci war a taxaw sooxe na loolu moom mooy dëgg en réalité il faut ñu ñu fexe ba suñuy ndaw ñu former leen si suñu ndaw ñu jox leen ay su suñu ndaw ñu def ci ñoom ay jikko yoo xam ni ñoom dootuñu soxlaati bi mais boo xoolee li nga xam ne moo xaw ci Sahara xool leen Tunisie nga leen Maroc conditions yi nga xam ne moom la ñuy vivre mais ça veut dire que ñii euh, dem nañu ba ñàkk espoir ñàkk benn yaakaar géntatuñu ci seen réew te loolu loolu lu loolu loolu lu kéemaane la loolu lu doy waar la donc il faut vraiment ñu liggéey mënuñu continuer Euh, nekk fa fi mu toll nii yaa ngi xale yi ñu ngi def immigration clandestine ñi demul immigration clandestine ñi ngi ci stade yi ci mbedd yi di football parce que foofu rek la ñu ni xëy na. ci la mën a jaar pour génn donc il faut ñu liggéey loolu je crois que lu am solo lu tekki même mais aussi comme ni nga wax sànq li nga wax rek mooy dëgg bu fekkee tamit dañoo xam ne euh, commencement bi dañu doon wax naan jàng amul solo da ngay jàng ba sonn ah, am say diplôme te doo liggéey loolu lañ doon wax moo dem ba indi yenn affaire léegi nag dañ la naan da ngay liggéey sax te doo am dara sa salaire buy ñëw yow fekk na jeex na bu yàgg mais foofu bu bu yàggee am na ñoo xam ne am nañ seen métier sax mais dañ ko fiy bàyyi dem di def immigration parce que duñu tekk ci seen liggéey et c'est dommage mais mais loolu moom mooy dëgg c'est-à-dire que fi fi fi ñu war a teg suñu tànk lañ ko tegul liggéey mooy tax nit ci tekki loolu lañ war a loolu lañ war a suuxat mhm. loolu lañu war a loolu la ñu war a jiital mhm. mais du politique mooy tax nit ku nit ki tekki du naxaate mooy tax nit ki tekki du du du ay pexe moo tax nit ki tekki mhm. mais nit ki dafay dafay dafay liggéey dafay nangoo ñaq daan dooleem baykat bële nekk ca tool ba di bay di di di ñaq muy taw ci kawam mu naaj bi nekk ci kawam kooku dafa war a tekki. mu gis ci euh, boppam ki nga xam ni dafay mm-hmm. napp dafay dafay sàmm ki nga xam ni dafay napp euh, ki nga xam ni dafa nekk ci atelier am nekk mécanicien nekk maçon. kooku dafa war a tekki. Mm-hmm. waaye ki nga xam ni moom mais mais ci ay pexe rek la nekk yor lépp. kenn xamul fan la jaar pour pour am loolu. ñooy tekki ci réew mi loolu métti pexe moom mooy tax nga ci. léegi nag loolu tekkiwul ni nit ki nit ñi waruñoo jàng donc nit ñi nañu jàng. nit ñi dañu jàng métier nit ñi dañu jàng lu ñu mën nañu wuti xam-xam lu ñu mën euh, parce que jàng nag tamit ndaw daf ko war a def bu fekkee mën na koo def mmh. jàng métier ndaw daf ko war def bu fekkee ni mën na koo def mmh. waaye nag nañu jooyanti suñu penc bi ni muy doxee ba nga xam ne ñi nga xam ne jàng nañu ba am yenn xarala ñi nga xam ne jàng nañu métier ba am nenn ñu taxawee ñu gunge leen ba ñu mën a téye ci lenn ba mën a tekki ca foofu ñu dëkk mais mais mais mais mais li nga xam ne moom moo am Dakar dëkk du doxee noonu pas possible c'est-à-dire mënoo jël Sénégal yëpp dankaloo dankaloo leen. biir Dakar dankaloo leen Dakar 550 kilomètres carrés. c'est pas possible mais waa Dakar dafa nekk ci ay lim ñu ëpp waa Gabon yëpp boo boole te Gabon gën a yaatu Sénégal. le Gabon fait plus de 260 000 kilomètres carrés Sénégal kilomètres carrés rek la Dakar kilomètres carrés ñoo nekk waa Dakar. waa Dakar kese ëpp waa Gabon yëpp boo boole mais loolu mënul nekk c'est-à-dire il faut ñu fexe ba suqali nit ñi dem di nit ñi dem ci nekk gox yi ñu nekkoon dafa liggéey yi am luñ fay tekki te bañ a soxla ñoom ñëpp bàbbee ñëw Dakar. walaay dëgg la bu ñu amoon espoir bu ñu amoon espoir foofu ci village du ñu ñëw Dakar. Hmm? ma ne bu ñu amoon espoir ci fi ñu nekk ci si si village du ñu ñëw Dakar. mais mais buñ fa amoon espace ba pare am am possibilité liggéey fa. Hmm. Euh, tekki fa seen dëkk yooyu soxlawuñu ñuy ñëw Dakar di fa dakkalikoo. Hmm. bu ma mën ci def. te hmm. mënoon nañu xool ñi nga xam ne dañuy jël gaal ñaata temps la def Dakar. boo ñëwee da ngay confronté wu à d'autres réalités Dakar balaa ñuy dem jëli gaal mais loolu nit nag tamit da dafay xoolaat ñi nga xam ne ay njiit lañu nañu xoolaat bu baax a a baax ni ñuy doxalee réew nañu xoolaat bu baax a baax a baax mm-hmm. suñu ay politique euh, nga xam ne dañuy yëngatu ci mbirum politique nañu xool yoon ya ñu mën a jaar pour saafaraal loolu loolu moo jar dëgg-dëgg mm-hmm. loolu moo jar dëgg ñu daje pour xool naka la ñu mën a def pour sauver suñuy ndaw mais leneen lu ñu def rek euh, pour man vraiment nekkul loo xam ne lu prioritaire la mm-hmm. li gën a prioritaire mooy naka la ñu mën a def ba sauver suñu réew ba defaraat suñu koom ba dëkk boo mën ci ne ak lu mu sori sori ndakaaru dëkk ba mu am loo xam ne di nga fa mën a dundee di nga fa mën a di nga fa mën a liggéey soxlawul ngay dem benn di bàbbeeku di dem benn di jaay sa bakkan euh, wala ngay euh, voilà hmm. loolu loolu dëgg dëgg nag euh, am nañ fa ay jafe-jafe merci professeur